wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi ddin rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli waj'al kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida saddid lisaani nawwir janaani saffi amaani wa zid baraa'i ñi nuyu mbokki taalibe yëpp di nuyu ñi nga xam ne ñëw nañ ci màggal gi ñépp di nuyu tamit site bi di seen info di leen sant bu baax baax ci liggéey bu rafet bi ñu def ci màggal gi di leen ñaanal suñu borom bi subhanahu wa taala gën leen a jàppale ñu sàkku woon nag ñu defal leen ab tënk rek ci màggal gi kon nag xam nañ ne màggal moom niñ ko xamee rek ci sëriñ Touba jóge baatu màggal ci sëriñ Touba la jóge Cheikhuna Ahmadul Xadim moo ko tuddee màggal ci moom lañ ko njëkk a déggee mu waxee ne sababu xaybatiya an allaha araada an anaala minu jaaha wa an akuna shafian li xaw mi wa an akuna xaadiman fi daw mi sa sama sababu bi nga xam ne ci la ci lañ ma génnee ma dem ci tukki bi loolu de suñ borom moo ci namoon yëkkati ci samay daraja mu am ci daraja yoo xam ne kenn du ko ci fekk suñ borom tim moo ci nam moon ma nekk ki nga xam ne xeet li sama xeet te it ci la ko suñ borom joxe garaatu xaadimu rasuul kon nag màggal moom moo ko tuddee màggal ndax bu njëkk bi màggal gi di tàmbali mag ñi daanañ ko woowee tabaskiwaat mu ni leen buñ koy woowee tabaskiwaat ndax day nuroog bi daa te man moom duma sos ci diina kon nañ koy tuddee màggal moo tax mu ne awalu mabtada bihil xadiimu taalluqun bi man lahu taqdiimu wa asharal xidmata aama jaysasin wa qalbuhu atmarha min asasi liggéey bi nag cheikhuna ahmadul xadim nee na mi ngi ko façon ci atum junni ak ñetti téeméer ak benn mooy bi fi Maam Mor Anta Sali bàyyeekoo ba ca déwén sa waaye mi ko fësal ci atum junni ak ñett téeméer ak fukk ak ñett wa adxalil ilaahu fi quluubi man tasabbabu fi naqlihi saaga zaman ixraajahu ilal bilaadi naaya wa naala fiiha fawqa samia saariya moo tax mu ne suñ boroom def ci xolu tubaab yi ñu génnee ko yóbbu ci réew yu sor ya waaye nee na foofu amee na fa ngëneel yu kawe ba am fa ngëneel yoo xam ne sax kawe na kawe na déggu saariga xam ne kon lim doon wut ci tukki bi am na ko ba am sax lu ko ëpp tax mu ne ta rasulallahi lii faw xamat la bi lim ci doon sàkku yëpp am na ko ca ba am ca loo xam ne ëpp na lool sax wa saaxali kullama ahwa bila talabi ya ummuni ridwaanu min kulli jaanibi am na ca ngërëmul yàlla lu kawe ngërëmul yàlla yuy bàyyi koo ci wet yu ne di ñëw ci moom ya ummuni ni ridwaanu min kulli wijhatin am na ca ngërëmu suñ borom yoo xam ne day dotti ko fu ne di jëm di ñëw ci moom mu ne radiya anniya ridaahul akbara baaxin bu umriya yu baaxil kubara mu ne suñ borom bi gërëm nañu ci ngërëm lu kawe la gërëm na ma ci ngërëm yu kawe yoo xam ne suñ borom sax moom day puukaroo ca xejjame di leen wax ne xool leen li ma defal sama jaam bi radiya anillahu wa rasulu wa ahla badrin wa ataani suul nee na yàlla gërëm na ko ci liggéey bii mu doon liggéey yonent bi gërëm na ko ci ñooñ badar ya gërëm nañ ko ci teyit lim ci doon sàkk yëpp suñ borom bi jox na ko màggal gi nag sëriñ bi daana ko def laata mu ci joxe ndigal bu 18 safar jotee daana am lu mu daan def ca biir kër ga nga xam ne mag ñi mag ñi ko jege woon ca kër ga seetlu woon nañ loolu ci moom sëriñ ma Massamba Faati nga xam ne rakkale ci sëriñ Mbàkke Buso ñoo bokk ndey baay nettali na ko ca Céyeen ñu ne sëriñ bi daana ko def ca Thiéyène te ndigalu màggal gi mi ngi tàmbalee njaareem moo tax sëriñ mu Ka mi ngi naan njaareem la njëkk a màggale ci tal sachin la àggale fii lañu bàmba jommale tey bàmba ahmadul mbakki yu sëriñ mouhamadul amin Diop mi ngi nettali ci alminahul miskiya fii xawaarixil mbàkki yi mi ngi nettali am na ku ñu wax mouhamad ibnu masise ñëw na ci sëriñ bi di 18 safar bisub àllarba 1340 masasin mu jàpp ak lëg ci àll ba andil ko sëriñ bi ndax nee na lëg gi da koo fu mu jaar rek mu daw wut si ko mu ne ko naa ko yit sëriñ bi comme fu ma jëm mu wut si ma nee na mu yit ko sëriñ sëriñ bi fekk sëriñ bi mi ngi toog ci mbooloo mi wa kaana mustaqbilan fastadbara xalilan mu jox ko sëriñ bi sëriñ bi walbati ko tuuti daal di tudd yàlla daal di ne lëg gi daa ñëw rek ngir fàttali ne bis bii laa génnoon te ak fay rekk ci des daal di ne arnabun alif gi ijaaba la suñ borom bi defal na ko ijaaba boo xam ne dana ko loo bëggat rek dama la koy may nga soo koo ñaan ridallahi an nii lahu yàlla gërëm na ko ngërëm ya gën a kawe an naful kaamil njaram yu njariñ yu matale yëpp yàlla teg na ko ci loxoom albarakatu saamila allaazima ak barke boo xam ne buy tasaaroo la bu sax dàkk la nga xam ne loolu moom fuñ ko xool rek gis ko mu ne ko delloo ko te fexeel ba bu la say noon jàppoon loo bëggul ñu def la ko bul ko def bul ko ko def bul ko def lëggi nga xam ne nee na booba murid yi ñi ngi raay di ci barkeelu mu ne kon naa ko yóbbu sama kër barkeelu ci jox ko mu naan waaye nee na bi mu ko yóbboo da koo teg rek lëgg daw gisatu ko sëriñ Habibu Mbàkke al ti imam tamit nettali na na 1918 moom tam fekkee na sëriñ bi def ko fii ci njaarim ndigal lu mag li nag moom mi ngi tàmbalee ci 1922 mooy ndigal lu mag li nga xam ne ci la ko sëriñ bi digale woon sëñ sëñ Moulay Boussa mu defaral ko mu defaral ko gàtt boobu ndax ga sëñ Modou Boussa nga xam ne doom la ci sëriñ Mbacke Boussa moo ko joxoon aw bay bi mu ko joxee aw bay sëriñ bu woo sëriñ Moulay bu ne ko nga dencal ma ko ba ma soxla ko bi mu demee ba 18 safar di waa ji ñëw sëriñ bi woowaat ko ne ko bay woowu ma la joxoon dama bëgg nga weccikul mu ko ab gàtt sëñ mu laay tamit dem ci fii séeréer si di jaayee ay gàtt mu wecc ko ko fa nee nañ bi séeréer bi gisee gàtt bayu sax da caa kontaan lool ndax dafa nekk bay woo xam ne bay wu baax la waxoon wax woo xam ne wuy am njurte la nee na mu jox mu ne ko xoolal gàtt bu la gën a rek nga jël ko sëñ mu laay tamit jël ci gàtt ay gàtt bu baax yóbbu yóbbul ko sëriñ bi nee na bi bis bi ñëwee nga xam ne mooy 18 safar sëriñ bi woon na sëñ Moulay Bousso ne ko na ko defar te bu ko defaree mu séddale ko kon loolu fu ndigal lu mag la foofu la tàmbalee bi biñ defee lool ba noppit ci la joxe ndigal ne képp koo xam ne sama mbég sa mbég la bis bii bu ñëwatee nang ma ciy sant yàlla nang ma ciy sant la yàlla ndax dane shukru ilaahi xaana fii turaabi ba'da jamii sabri féexu tiraab yi nee na daal sant yàlla daal léegi dama koy def ci sama dëkk ba ginnaaw bi nga xam ne jànkonte nag coono yoo xam ne yu metti la waaye lépp ma ànd ko muñ rekk ci tumranki gi ma tumranki woon ba suñ borom bi fay ma ci lii lépp mu ne chakarahu kulliya kenn xad jas an shukrihi wa aduhu liya jas mu ne moom dama koy sant sama lépp doo koy sant lépp lu tax ci ma it da koy sant waaye sant gi may sant sama borom am naa ci yéen joo xam ne sa santuk sama bopp doyatuma ci moo tax mu woo jullit ñëpp ñu jàppale ko ci sant gi moo tax mu woo jullit ñëpp ñu jàppale ci sant gi ne li ko tàmbalee ci ganaar ba ci gëléem lu ci waay man rek na ko ci defal nanku ko ci defal ci santam gi lu ci waay man rek mu ne nga defal ko ci santam gi santale ko suñ borom kon nag xam nañ ne sëriñ bi sant gii rek la ma ko ko ci jàppale keroog ba muy génn daarul mën naan am na ci seex si ku xaacu ne ko may nu nu xeex ak tubaab bi nan nu rey ban jeex baa nu rey leen ban jeex sëriñ bi ne ko lam axaf aduwan walam attaxis saddiixan wasimaami bi yadillaahi ne ko man di ragalu ma am noonu te it tukki bii may demit soxlawuma ci xarit bu may àndal te sama mbir yëpp ci loxol suñu borom bi la nekk kon xam nañ ne cant gi rek la ma masa sàkku ko ko ci jàppale waaye lu du lool rek musta sàkku lenn loo xam ne day sàkku ko ko ci jàppale dañuy xool sax buñ gisee ci xasida walan yaj'ala llaahu lil kaafiriina alal mu'miniina sabiilan ma ngi tey wax ne yashkuru sal jalaali wal ikraami insha kulliya bilan siraami nee na sama lépp day sant suñ borom te it ci kanam rek incha ci kanam rek danañ dem ba nga xam ne lépp lu takk ci man dana ma sant la suñ borom te sant googu na nekk cant goo xam duutul dog ba mukk kon nag xam nañ ci xam nañ ci ne yu bëree bari jaar na ci Sénégal waaye taxut màggal gi dog feebar boobu ñu naan corona jaaroon na fi nga xam ne lu bëree bëri arrêté woon lu bëree bëri doxatul woon waaye teewul màggal gi dafa continué woon kon loolu sëñ bi sëriñ bi fàggu woon la ndax bileen siraami la wax ci lu dul dog te nee na bisam bii suñ borom de ko cee fay fay goo xam ne nee na ko àjjana sax de amul bis waaye buñ demee ba àjjana tamit heure bu bisu màggalu Tuubaa yi ñëwee rek waaye àjjana ñëpp danañ xam ne tey jii bi bisu màggalu Tuubaa loolu li ko ci suñ borom fayee lool ci la bokk moo tax mu ne nawetu shukruhu la daa daari salaam waxande tuubaaya bi isnin wax waxilaam mu ne sant gi tamit am naa yéene di ko defee daaru salaam ci sama dëkk ba ak ci sama dëkk ba di tuubaa ko bay ba tey loolu ñëwaat na ndax xam nañ ne moom bi mu fi bàyyi ko ci saayir Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko wut waaye seex Cheikh Mouhamadou Moustapha bi mu ko wutoo moom da ko wéyale rek ci ne ko sëriñ bu mag ba doon defee waaye Cheikh Mouhamadou Fadel nag moo ko woote fii ci tuubaa kon màggal ci Cheikh Ahmadul Xadim la jóge waaye màggal si Touba moom ci Cheikh na Cheikh Mahamadul Fadel Mbàkke la jóge bi mu toogee ci xilaafa gi ba ci ñaareelu at ma tolloog 1366 ci atum 1947 la woote màggal gi fii ci Touba boobu nag waxoon na ci ni ñi màggalee ndax dana bala ansimuhu bi tilaatul quraani wa sikrillaahi tabaaraka wa taala wa qiraatil xasaayidi wa itaami taami lil yataama wal masaakiini wa sillatu rahimi wa siyaaratu saalihiina nee na màggal gi na ngeen koy màggal ci jàng alxuraan ak tudd borom bi subhaanahu wa taala ak jàng xasaayidi Cheikhuna Ahmadul Xadiimi ak lele aw ñam ak di bàyyi xelin ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ak di ci jokk ak bokk ak di ci siyaare ñu baax ñi mu ne bi charti allah yakuna fihi munkarun wala laibun wala lahun nee na daal bu ci kenn def lu naqari yàlla bu ci kenn caaxaan bu ci kenn fo waaye màggal gi ak cant la jaamu yàlla la noonu lañ Cheikh Mouhamadou Fadi wax ne nañ koy màggalee noonu ci jàng alxuraan tudd borom bi subhanahu wa taala jàng xasaay di Cheikhna na Xadimi lelee ñam bàyyi ñi nga bàyyi xelit ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ak jokk ak bokk ak siyaar ñu baax wa maa jaraa majraha te xam nañ ne suñu borom wax na ne wa xalilun min ibadiya shakur ba suñu borom di wax ne néew na lool ñu may sant ci sama jaam ñi kon nag tax na tey Seyxuna Ahmadul Xadim tey tax na tey ji lu ëpp lu gën a bëree bëri ci mbindeef yi ñi nga sant suñu borom te loolu lépp mi ngi jóge ci moom te it seytaane dafa waxoon ne su ma la aqudanna lahum siraatakal mustaqima mu ne yoon bi nga xam ne yoonu sant yàlla la foofu laay toog ba ñu ci baree bari koo laajit rek day jàmbat waaye kon xam nañ ne Cheikhuna Ahmadul Khadim moom loolu lépp jëlee na ko fi Serigne Mbaye Diop rahimahullahu moo nekkaloon Serigne Saliou ca Mbuur daane nettali ne Serigne Saliou daan wax naan jaay kër day nekkul nekkul mbiram dana jaay kër moom daan Serigne Saliou daan wax naan nekkul mbiram waaye nee na bu fekkoon ne màggalu Tuubaa ñëw na ca lim ci yéene def lépp taxul mu jekk ko jaral na ko jaay këram yëpp kon xam nañ màggal gi dayoom fi mu toll yàlla rek moo ko xam Seexul Xadim tamit wax na ne foofu ñaar dendee kii di ko fonk kii di ko bañ a fonk ka koy fonk moom fokk day gis rek lu muy rawee ka fonk ba faaw kon nag tënk boobu lañ leen ci doon tënkal ñuy ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala ñu dajete ñu dajeceeg tawfiix Sëriñ Tuuba ba it bis bii lépp loo xam ne làmboon na ko ci ay ngëne rek suñu borom bi defal na ko ci wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.